mais les bu fekkee ni liñ tànnee Ballon d'Or est-ce que jarati na ko est-ce que jarati na ko moom laa leen di laaj let's move ak Amérique une fois xibaar yi ñu jot rotal nag si li nga xam ne kat mooy ballon d'or bi ki nga xam ne kat mooy Vinicius du gagné li nga xam ne kat mooy ballon d'or bi mu nekk nag loo xam ne nii lu yéeme la ak lu triste nekki loo xam ne ni lu bett la ndax ñëpp yaakaaroon naa ne li nga xam ne kat mooy ballon d'or bi ki nga xam ne kat mooy Vinicius senior mooy daal di gagné li nga xam ni mooy ballon d'or bi waaye jamono ji nag li jot rot si ay xibaar mooy ki nga xam ne kat mooy Vinicius senior du gagné li nga xam ni mooy ballon d'or bi mu nekk nag nouvelle boo xam ni nouvelle bu naqari la muy si côté ñi nga xam ne ñooy waa Real Madrid nekk si côté ki nga xam ne mooy Vinicius Junior du gagné li nga xam ne kat mooy Ballon d'Or bi ak saison bi nga xam ni kat ki nga xam mooy Vinicius Junior daal dina koy def mu nekk nag saison boo xam ni bu exceptionnel la bu extraordinaire bokk na si ki nga xam ne mooy Vinicius daanaka match yu bëree bëri ki nga xam ne mooy Vinicius moo nekkoon ki nga xam ne ku gën a décisif ak ñaata bit la dugal si li nga xam ne que mooy saison bi plus de vingt et bit gagné di li nga xam ne mooy Ligue des champions gagné ay trophée yu bëree bëri kon nag ki nga xam ne mooy Vinicius Junior mérité woon na li nga xam ne que mooy ballon d'or bi waaye daal bu fekkee ne nii nii lañuy ñu tànnee ballon d'or moom affaire yi daanaka mën na ne jaratu ko ndax ki nga xam ni que nag mooy Vinicius lu mu def ci saison bi yëpp ñu ne ki nga xam ni mooy Vinicius du gagné li nga xam ni mooy euh, ballon d'or bi ki xam ni mooy Rodri mooy gagné li nga xam ni que mooy ballon d'or bi nekk na rek loo xam ne lu yéeme la kenn waxul euh, Rodri mérité wul ballon d'or bi waaye ballon d'or bii ren jii ki nga xam ni kat mooy Vinicius Junior moo mérité wu li nga xam ni kat euh, mooy euh, ballon d'or bi ndax képp kuy seetaan football moom ren jii xam nga Vinicius li mu def si li nga xam ni kat mooy football ak. Euh, affaire yu exceptionnel yu extraordinaire yi nga xam ne kat doon naka wane si li nga xam ne kat mooy saison bi daanaka match yu bëree bëri moom da koy daldi gagné wala li nga xam ne kat mooy passe décisive yi nga xam ne ñooy gagné match bi bal yooyu yëpp si ki nga xam ne kat mooy Vinicius Junior la nekkoon di jógee moo tax nag nekk na loo xam ne kat lu yéeme la ñii di waa Real Madrid dañoo ba daldi futt li nga xam ne kat mooy seen vol bi nga xam ne moo waroon a dem teewe ji fi ñu joxe Ballon d'Or ba dañ ko mujj annulé sax boobule wala du mujj dem kon nag ki nga xam ne mooy Vinicius du dem fi nga xam ni kat fa la ñu joxe Ballon d'Or ba ak ki nga xam ni kat euh, mooy Bellingham ak ki nga xam ni kat mooy Kylian Mbappé ak ki nga xam ne mooy Carvajal ñi tànnoon leen nag si ñi nga xam ni kat bokk na si ñi teewee li nga xam ni kat mooy ballon d'or bi waaye ñoo ñëpp nag kenn du dem teewee ji li nga xam ni kat mooy ballon d'or bi waaye gars yi xam naa fi leen ko yemal di leen jox dig daj di la wax yow mu abonné gu nga abonné di like di partage dana box li dooleel pass bi di leen jox dig daj ba si beneen vidéo ak beneen argument